Mamadou Diouf ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax a baax a baax di la dalal tey jii yow ñuy fàttali ne député nga woon bu parti démocratique sénégalais bokk tey jii ci commité directeur bi euh, yor tamit li nga xam ne mooy question environnementale yi euh, au niveau national doon coordonnateur département bu Mbour bu PDS tey ñu wax ci coppite gouvernement bi déjà nan nga jàngatee gouvernement bu bees bi fi ne. waaw maa ngi lay gërëm bu baax a baax gouvernement Euh, gouvernement bi dafa mel ni daal euh, sénégalais ba nga xam ne dégg dégg na lu ñu wax démb. Mhm. mu gis ni ñi génn di wax ku nekk danga nga jaaxle. yi leen jaaxal mooy euh, ñi njëkk génn wax dañoo ne bi dialogue bi commencé bu nu waxtaanee ci dialogue bi ba pare. Mhm. bi ñu déggoo ci dialogue bi lii la jur. loolu nag dafay dafay dal di won ne ñun ñi nga xam ne bi dialogue di commencé dañ ne woon demuñu dialogue. Mhm. wax ne ñun teewuñu ci dialogue ñu wax ne ñun bokkuñu ci dialogue à ah, à partir de ce moment kon kuy sóor gouvernement boo xam ne dialogue moo ko tabax alors ku newul ci dialogue bi normalement waroo mën a bokk ci gouvernement boobu. waaye dialogue bi jeexagul. dialogue ah. dialogue bi jeexagul. waaw léegi xam nga yow euh, gëstukat nga te jàpp nga ne euh, dialogue bi jeexul wante ñi woote dialogue bi dajale nit ñi ne tënk leen ñu kel lu am solo waxtaan leen ci dialogue bu Sénégal. léegi nag boo leen waxtaanee ba pare ngeen jox ñu document wu dialogue boobu ci document wu dialogue boobu ci la ñuy sukkandiku pour changer li war li box li baaxul woon pour orienter pour teg a yoon bu baax boo xam ne danga jëmale Sénégal ci kanam. Mhm. jàpp ne loolu mooy dialogue bi. Mhm. léegi nag dialogue googu parewul nit ñi ne fal nañ gouvernement. te ñi taxoon ñi dialogue muy population bi. Mhm. muy parti politique muy ñeneen ñi. maanaam jàpp nañ ne seen liggéey pareegul jàpp nañ ne gisugunu rapport. bu pare gisungu texte législatif bu nu yóbbu ci assemblée bi wone ne à l'issue di dialogue bu nu dialogoo gi ba pare lii de changé nañ ko ci ci ci code électoral mm. lii de changé nañ ko ci constitution lii de changé nañ ko ci euh, euh, euh, ci beneen loi organique pour wone ne waxtaan bu dialogue buy jur moo waral yi changement kon xam nga ne kon dialogue pareegul Hmm. wante nangu nanu ñoom ñi xam ne ñoo woote dialogue dialogue ba pare pareegut wante li pare mooy ànd bokk genn gouvernement partagé gâteau loolu moom pare na. yow loolu nga jàpp tey jii euh, duguleet ñuy gis sa gouvernement euh, bi nga xam ne dañ ko gën a yaatal euh, ban intérêt la amal Sénégal. gis bii de gisuma intérêt bu mu mën a amal Sénégal. mais du tey ñuy gis gouvernement bi nga xam ne dañ cee boole partie prenante yu bëri gis nañ ko. ci temps Senghor gis nañ ko ci temps wu euh, Abdou Diouf Wade sax euh, bokkoon na ci. waaw ñun bokk nañ ci gouvernement ak Abdou Diouf. Mm-hmm. wante lañ ko mos a xam mu taxaw ci opposition euh, ñu jóge ci élection Thiès yëngatu Dakar yëngatu. dëkk bi kenn mënatu koo gouverner. Mhm. jax jaxasoo bi leer nañ boo ki jiite ki ne gagné na par force tëj président euh, ou secrétaire général suñu parti ca ca ca kaso ga mhm. dëkk bi kenn mënatu ko gouverner nit ñi dem wax ak moom nee ko pour nga kon ne gouverner da ngay libérer Abdoulaye Wade da nga koy dugal ci gouvernement bi ngeen ànd Abdoulaye Wade wax lu leer nañ même bu duggee ci gouvernement bi day rester opposition day continuer liggéey pour l' opposition waaw yàlla def na d'ailleurs mi tasul euh, donc yàlla yàlla def na d'ailleurs booba mm-hmm. boo xoolee suñu dernier dugg ci gouvernement dañoo génn élection mm-hmm. dañoo génn ci gouvernement bi jubal directement Touba jógewaat foofu cap sur quatre-vingt-dix-huit dem ci élection quatre dix huit yoo xam ne lañ ca jëlee ci député li mu député encore moo topp ci ginnaaw parti au pouvoir foofu la ñu déclenché la procédure pour euh, jël réew mi en ñii nag ñii toog ñii tey dugg ci gouvernement bi ma jàpp ma jàpp ne ñoom euh, wax seen wax leer na li tax mu leer mooy lama ma mm. dégg ca kàddu seen kàddu ci kanamu journaliste yi mm. dañu ne dañ doon waxtaan ak wa réew mi ak waa nguur gi laa wax sax ak ay ay ay defarkat ay ay négociateur ay waxtaankat ay organisateur mm-hmm. bon ay kilifa si ñaari anam mm. bi ci njëkk mooy bàyyi ñee bàyyi ñii waa réew mi par exemple ñu nekk opposition ba pare ñu jox leen chef de l'opposition beneen bi mooy ñu toog euh, tàbbal seen loxo ci biir mbir mi maanaam ñu jox leen ay post de responsabilité mm-hmm. kon bu seen waxtaan mate ñoom nangu na noo tàbbal seen loxo ci mbir mi maanaam jël ay post euh, euh, ministère ak ay poste conseil économique social dem ànd ak pouvoir bi génn opposition mm-hmm. loolu nag bu dee koo xam ne mi ngi ci fin wu responsabilité ak engagement pour conquérir le suffrage universel au niveau national moom moo toll foofu. Hmm. da ngay jàpp ne da ngay jàpp ne kuy jeexal. bokkul ak koo xam ne xam na fu mu jëm tolluwaat fi loolooy différence bi. Hmm. entre li wat defoon quatre-vingt-treize ak li kii def en deux bokkul. am na benn mot bi nga utiliser sànq muy deal. Euh, tey ji tamit euh, li ni mel bu ngeen ko jàppee deal kon. amoon na euh, ca jamonoy Wade ak Idi tamit. ah deal bi de yéen journaliste yi yéen a ko fësal. Mhm. moom mii dugg ci gouvernement Macky mhm. moom moo ne ñun dañu doon deal. léegi am na ñi jàpp ne tamit. kon dil bi koy kon mooy dialogue national mooy dil bi e à partir de ce moment on constate kon ki doon dil mooy ki xool li lan la mën a def tey pour génn ci lu mu nekk et à partir de ce moment donc e mooy li mu doon teg ci bopp ci ci kaw nit ñi moom la jël moom euh, euh, ak yi moo ko téye ko donc li nu mën a constater à de ce moment rek mooy opposition moo war a organiser waat taxawaat ñi fi des te nangu ne opposant lañ waa PDS euh, waa waa waa waa kër Ousmane Sonko. Mm-hmm. Eh, euh, Pastef ak ñeneen ak ñeneen ñi fi des. Mm-hmm. te nangu ne opposition lañ. maanaam ñoom ànduñu ak demuñu woon dialogue dialoguñu bokkuñu ci dialogue bokkuñu ci règlement de compte à de ce moment ñu suivre. la procédure normale bi Sénégalais yi bëgg. Mhm. pour conquérir le pouvoir à travers les élections locales yi ñëw. à travers élection législative yi. Mhm. mais aussi à travers la présidentielle de deux mille vingt jii ndax lii du nax saxal deru politique yi. Euh, du ko nax saxal ndax sénégalais yi mën nañoo comprendre. Hmm. gis nga ñiy politique lu mu bëri bëri bëri kenn ku ci ne bu bu ngoon jotee da ngay ñibbi sa kenn ku bu ngoon jotee da ngay ñibbiwaat ci sa koñ. way yàgg nañ ñoo wax ni homme politique yi euh, bu ñu nekkee ci mbedd bi ñu xiiroo ŋaayoo waaye bu ñu demee dugg ci biir toog ci benn table ñoom ñëpp bokk ko. loolu sax c'est normal xam nga entre politique ak euh, noonoo ak ànd loolu mën nañ ko comprendre. Mhm. mais xiiroo boobu nekkul xiiroo pour. xeex dafa nekk xiiroo principe euh, li waaw na ngay engagé wu pour liggéey hmm. yow da nga jàpp ne yoon bii man dama jàpp ne opposition mooy yoon bu baax bi pour conquérir le pouvoir topp yoon wi toog par rapport ak mes principes hmm. keneen ki jàpp ne day euh, suuxal partem wala day wàccee boppam day topp ke nga xam ne moo gañe hmm. lu mu am rek may ko ci alors à partir de ce moment sénégalais la différence entre ñaar ñooñu kan moo ci gën a méngoo ak lu ñu bëgg pour Sénégal jëm kanam. Mhm. parce que nag ki gëm dara ak ki gëmul dara. yow boo leen di àtte te yow àtte rek mooy sorol te ma ngi koy àtte yaa ngi koy àtte ci yow tànn. Mhm. koo xam ne moom nga xalaat ne taala kii day wax dëgg yàlla du ma war ndax ki dul war mooy koo xam ne dafa topp yoon boo xam ne jàpp nañ ne lu mënta xew rek boo ñëwee nga jàkkaarloog moom. alliance Idy Macky tey Oumar Sarr ñu gis ko moom it mu dellu si euh, ci biir gouvernement bi nan nga ko jàngatee. bon bu euh, Omar Sarr bettuñu. bettu leen bettuñu ndax euh, li tax moom mu jóge PDS. Mhm. xuloo bi fu mu jóge mooy ndax dangay dem dialogue ak doo dem dialogue. ok kilifa gi nga xam ne moom mooy sama kilifa nekk kilifa moom. Mhm. moom moo ne bul dem. kon moom bu demee défier kilifa gi ànd ak ñu ma àndal dem dialogue dialogue ba. kon bu dee dialogue bi mooy waxtaan bu dee dialogue bi mooy dil bu dee dialogue bi mooy produire gouvernement mhm. ah boobaa logiquement dafay dal di bokk ci gouvernement boobu parce que looloo taxoon mu forcé ba bàyyi ñi doon àndal de mu fekki ñoo xam ne mosuta mhm. ànd ak ñoom mhm. wala bu am àndoon ñoom tamit ñoom bu nu gañee ba léegi ànduñu wax ci parti démocratique sénégalais tey jii euh, am na ay jamono ci ginnaaw ñoo ngi doon wax chef de l'opposition ñenn ñi di xëcc euh, jëm ci euh, parti mi ñeneen ñi daan PDS la tey dem Idi ci li nga xam ne moom mooy alliance am mook njiitu mi ndax tax na PDS mën a repositionner PDS du repositionner dafa positionner depuis ah mais monsieur Diouf gis nañ hmm? PDS jamono ji jafe-jafe yi muy jànkonteel bëri na. Eh, eh, limal ma ci benn. ah xeexoo gi amoon ci seen permanence bu yàggul. bu parti wootee ndaje. Mm-hmm. ci biir benn saal. saal bi fees ba ñu ñuy génn ci mbiti loo xam ne réunion simple woon juste lancement wu jaayum carte mhm. nga génne ko ci sa ci bi ba mu fees dell nga dem di wuti ay chaise nit ñi amatuñ fi ñu toog ba mhm. euh, euh, ba ba taxaw mhm. mu am kenn koo xam ne dafa wone point de vue am keneen wone le euh, contraire ñoom ñaar ñu jàppante ñu naan leen toog leen génn leen ñu toog ñu reprendre suñu activité loolu vitalité parti lay wane. bu hmm. parti parti bu amul doole du dajale ay ndaw du dajale ay jigéen du dajale ay mag leneen li ci teg mooy euh, euh, PDS. statut de l'opposition euh, statut de l'opposition dañoo jouer rôle boobu. Hmm. vingt quatre ans ba deux mille. Hmm. bi de 2000 à 2012 ñu exercer le pouvoir. Mmh. bu ñu wàccee 2012 ba tey jii ñuy wax ak yow ndax ñoom def nañ constitution bu leer ndax respecté nañ la constitution de 2002 non ndax def nañ loi organique non ndax def nañ statut de l'opposition d'une manière organisée. Mhm. pour le moment no pour le moment non mais quelque que soit ñoom lu ñu mën a def. Mhm. ku nekk fi observateur yow mii nekk journaliste sénégalais yi ñuy déglu ak population yi xam nañ ne que PDS moo jiite opposition territoriale au Sénégal. Mm. maanaam le nombre de communes. Mm. et de départements euh, yoo xam ne waa PDS ñoo leen jiite moo ëpp loolu mooy benn. Mm. ñaareel mooy euh, euh, jiite opposition parlementaire boo demee tey. au niveau de l' assemblée nationale le nombre de députés. yu mm. jógee parti démocratique sénégalais moo ëpp yeneen bi. Mm-hmm. donc à partir de ce moment logiquement da jàpp ne euh, yoon waajal ko yoon bañ ko waajal naturellement nous incarnons ce rôle de chef de l'opposition depuis bi ñu wàccee pouvoir. waaw xaj na kay danga ma bëgg a wax ne. waaw ndax tey buñ ko dëggalee. Euh, du tax ah. sénégalais yi wax aat beneen deal. déedéet ndax. Euh, ñun dañoo laajul loolu. Ah. ñun dañ ko sàkkuwul. d'accord ñi ko doon sàkku ñoom tànn nañ ci diggante bii ak bii ba dem. kon daal yow jàpp nga ne réew mi ñoom ñoo sàkk woon. waaw waaw mm-hmm. ñoom ñoom loolu dafa bokkoon ci terme de référence dialogue ba maanaam loolu ñoom bu nu toogee foofu di xumtu di waxtaan loolu bokkoon na ci lañ doon waxtaan. léegi ñun bokkuñu ci dialogue ba waxtaanuñu kon bokkuñu ci loolu. Mm-hmm. li leer te leer mooy xëccoowuñu chef de l'opposition. Mm-hmm. xëccoowuñ ci dara. wante bu buñ ko tëralee ni yoon wax tërale ko li liñ ko war a tërale mhm. ñu jox ko ki ko war a jox dana ko incarner même bu fekkee parti démocratique sénégalais benn responsabilité rek la am mhm. ci wàllu woowu maanaam fexe ba nekk chef de l'État au Sénégal à travers de son leader Karim Meïssa Wade mhm. tey ji lan mooy euh, perspective yi foofu ca parti démocratique sénégalais perspective yi gën a leer mooy jaay suñuy carte mm-hmm. monter suñuy secteur mm-hmm. monter suñuy section monter suñuy fédération organiser parti bi à l'interne def un congrès avec notre leader Karim Meïssa Wade mm-hmm. préparer les élections locales pour gagner ay communes yu bëri ak département yu bëri préparer les élections législatives pour am une majorité à l'Assemblée nationale ba Macky Sall du mën a gouverner correctement au niveau de l'Assemblée et à partir de ce moment maintenant ñu yeggali ko en deux mille vingt quatre pour de euh, pour mu dem toog noppalu ji defi leneen euh, suñu candidat ñëw nekk président de la République. justement uh-huh, kañ la seen secrétaire général parti bi di ñëw Sénégal. léegi léegi. mooy. léegi mooy léegi rek mooy bu paree rek ñu gis ko. d'accord monsieur Diouf euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. may fàttali ne yow membre du comité directeur bu PDS nga responsable tamit ca département bu Mbour merci beaucoup. et particulièrement de la de Ndiaganiao. commune de Ndiaganiao <laughs> monsieur Diouf.